bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh barakaatu julit jullit ñi soppe Seydina Alassane Salam Sen mbokk Adama Salam tay ma ngi wat fi ci Dakar di mardi le 4 août ci Géejawaay le 4 août 2020 set ci docteur Diakhané di won ko xam daan na fekk Alassane Salam suñ docteur Jahane itam bayem nekkoon wëllëre Seydina Alassane Salam mu dan fek jotaay serigne bi ñu koy lacc mom ngir leral lim ci fekke loolu fàttaliku rek baaxee ko. moom day nitu yàlla koo xam ne moom tubaarkàlla rek nun noo nekkoon jokkaan ci daara Cheikh Mafal Tine yàlla dogal mu nu fay fekk dafa am na loo xam ne moom dégguwuñ ko ci kenn noo ko fekkee comme xiise bi ñu leen nettali léegi am na loo xam ne nag du jar bu dee wax ci enregistrement moom duñ tudd tur dañuy dañuy dañuy rek la ko ñaareel wala lu jiitu loolu wala lu ko mujj ba tey loo xam ne kenn nit loolu maa ko fekke la sëñ Assane ñëw kër sëñ Mafal waxtoo nawet la man kere maa ngi sol tubay ju gàtt joo xam ne ëgsiwu ci samay woom bi sëñ Assane bi tisbaar jotee ñu li xaamal ko mu jug julli dafa daan taxaw daal di ru kabar jàng la mooy jàng rukkoo su jóot siggi su jóotaat siggi daal di toog ci premier bi la toog jugaatul muy jug taxaw astaxfirullah nun ñii ne ca ginnaawam ñoo taxaw sëñ bi rek fu mu toll moom dana allahu akbar sami allahu liman hamid allahu akbar nun nun nooy roqoo ko sujjóot ka taxaw ba julli ga jeex mu toog ba mu jullee ba pare man maa nekk ca sàppe ba ca wetan di jor ga mu daal di may jox ñama yow mii laay wax xanaa yaramu ne dina julli ma ne cell booba gone laa xaw ma ko sax ñemee ndax dégg histoire am mu daal di may jox laay wax yaramu ne dina julli xanaa amoo tuba ju gudd mm. man a cell mun ma mën na ko axakay ah mun ma dee ko sol mm. yuusu tiin mm. booba yaayam ku ñu wax ma mati daaro moo sëñ ma faa la bokk ndey ak baay yuusu moom ci sëñ asan la jokk woon yuusu daan na ko kii doomi alaaji muudu faatu la mu daan na may xoolaat daan na ah kii de koo gis xam ne muudu faatu ko jur wax ca jataay ba daay na ma sabaay de gis naa ñu bind ca jëba rahmatullahi yërmande yàlla biñ jullee ba noppi ñu delluwaat ci waxtaan mu nuwaat ci laalub sëñ ma faal jublu penk am na benn waay boo xam bu service la maa ngi koy nettali léegi waaja trois trois pièces njëmpuj yi xew léegi la waaj soloon am na sax ku muy nuur ci suñu bokk ci ak service ak yaram ma na mu ñuulee rafet lool macha allah ñu yox ba ci ak waaj ree sëñ Assane joxoor bi ko na ko signal mu siñ mu ne ko da tëdd jabari jàmbur lii ma lay wax ne kenn nettu ma maa fekkee ci kër sëñ ma faal mu ne ko signal waa ji sëñ mu ne ko bàkkaar baa ngi ni say bàkk sa sa bëñ yi digal ko nag ne ko waaja nag la mu fa tontu leen dong la tontu la ma dégg moo ko muy cëy ndakaaru rek la wax cëy ndakaaru xam naa la ko dal moom ragal naa ndakaaru la ko dal ndax ndakaaru lu jóge woon mm. mi ngi ànd ak benn xaritam ñor benn oto bu weex booba àgguma ci ràññi oto bi ban ku ban uh, marque la mm. xam naa lal bu weex bu rafet la rek mm. boobu maa ngi ci daara ja mu daal di koy digal ne ko guddeeg dibéer boo jullee jee bala ngaa sawaag witar nga jàng ñaar nga julli ñaar rakka jàng ci nangam ak la muy jàng nag fàtte naa ko bañ ko koy dicté nag di ko leer sëñ Assane ne déglu leen moom lii ko dal ma wax ko li koy saafara su amee yittee pour bàkkaaram bi saafara wu koy dina déglu dina ko mën a répété daal di répété waat ca jataay ba wala beneen euh, jamono wala beneen yoon bu dul ci jataay bi tamit beneen yoon waaye loolu ba tey du lu ma dégg kenn nettalu ma ko sëñ Assane laa dégg ci làmb ñu boppam sunu ñaari mbokk koo xam ne bàyyi la ci man sant joxaane ak koo xam ne bàyyi la ci man sant jum nga xam ne ci sant jum yaayam ak baay ki sant joxaan ñoo bokk ndeeg baay ñu dool xuloo nag defe naa li ñu doon xuloo bu ma loolu moom gorewuma ci waaye na ma dégg histoire bi ci sant jum ni jaay ji dafa faatu mu ñëw di xuloo ci ndoonoy mi mu jàppante nag ci sant joxaane sëñ Assane laa toog mun a mafaal mun a ko mun a ko diw joxaane fekk ñoom ñaar ñëpp faatu na bi muy nettali lii mu ne ko mafaal mu ne ko naam mu ne ko diw joxaane ak diw jum mu naa ah mu a ko seen xuloo bañ doon def ci adduna mu naa ah mu ne ko diw joxaane yee ko ca barsàq lii bokk na ci li ma teew moom waaw am na sax yeneen yoo xam ne sax daanaka mënuma ko ne na ma ko fàtte waaye lii moom nii ma wëri nii leen laa toog yéen tey jii di talaata di la 4 août noonu la ma leeral ni lii maa ko kenn nettiwu waaw sama baay tamit baay muudu faatu keroog bi nga xamee ne yàlla dogol na mu nekk ci tawat mi ngi wàcc liggéey la vingt janvier quatre-vingt-dix def na fi ne ñaar fanweeri at ak juróom benn weer yu tegal ay fan yàlla dogal bañ ko ko woowee wax ko ne ko góor gi dafa wàcc liggéey mu ne waaw dañ ko yóbbu tubaab ñu ne ko waaw mu ne kon buñ ko ñëwee ba njaareem rek nañ ko jël si ñu ñëw ba ñu jaar di jël oto dem ba njaareem am kenn ki ci mbokk yi dem jëli ko ci taksi mu ñëw tiim ko sëñ Assane dafa wax ne bii ci guddi ñëw naa fa avant may ñëwaat malaaka rom malaaka ma wutuma fa dabu naa malaaka mi ba asamaanu juróom ñaar waaye sunu borom dama gën a soxla ruugi macha allah loolu wax na ko ci jataay ba keroog la vingt cent bi bisab gaaw la quatre-vingt-dix mu daan na bu yàlla dogal ngeen jàpp bisab ñaan gi dinaa ñëw gaaw boobu ñu ko yóbbee ci lañ jàpp ñaan gi mu nekk la 27 janvier 90 ba mu ñëwee ñu daal di baas takk rajo mu daal di jël micro ba daal di ne El Hadj Modou Fatou gis naa ko ci àjjana juróom benn jigéenu xóorul xëy ni ñoo ko teeru wax soxna ya seeni tur koro rek laa mës a dégg tur yooyu ba keroog laa ko mës a dégg ba fi mujj dégg ba fii may wax ak yow. loolu mom lii ma netti lépp kenn ku ma ko netti la amul mako téré te amna na ma lay mujj wax ni khadim ñom ak ñom ñëpp fekk nañ ko mom pigine gi la ci agul dara fan wéral la leneen li mom mo yag dem ci ay ñeent fukat ak naam ci jokkan waye lii wax ni barki dembal ci xisa bobu mom lay mujj ndax bobu la la mujj la waye li dal mom lu ma mën a répété la man ko buma ma bu 3 trois heures de matin soma yew ma jaaraat yeneen yi sax amna yuma ci xam amna yuma dul xam ndax amna ci yo xam mom man naam ca sama dama tuur tankon lol wala muy nettali xisa bi seigne ma fall yoni ma ma génn ñëw am luma ci metti ne am lo xam mënuma koo nettali waye li mom mom bu doon alcorane la man mën naa tàmbali bismillah alhamdulilah ci ba ci wala dalina amin